salaamaaleykum mbokk yi Boubacar Jara la si kàddu gi maa ngi nuyu kilifa diina ak kilifa aada di nuyu waa réew mi yëpp waaye nag di woo sama mbokk ndaw ñi si muñ di woo sama mbokk ndaw ñi si ngëm si lu nga ne ndax dafa am solo muñ ak gëm sa la nga ne dafa am solo surtout si ndaw nañu dellu si ginnaaw réeruñu ndax am na suñu kilifa diine yu fi nekk nekk si suñuy xalif général ak seen njaboot muñ ak dal ak gëm su lu ñu ne moo leen may lu ñu am tey ji ba ñuy màggal di gàmmu di jaara di dem si ay daaka nañu muñ mbokk ndaw ñi ndax muñ dafa am solo si ndaw nañu jël exemple si Sadio Mané ñëpp a ràññee si football si Coupe d'Afrique lu toll na finaal mu ratat si plante mu tàpp nit ñi continué waat ci jomam ak muñam sunu borom defal ko teraanga dernière plante mu dóor ko senegal yëpp am ndam àdduna bi yëpp am ndam Afrique yëpp am ndam muñu ko ko may ak dëggu si lu nga ne. nañu jël exemple si Aliou Cissé entraîneur bi ñaata at ay tubaab di fi jaar amuñu résultat moom mu ñëw muñam ak dëggoom ak gëm su lu mu nekk ak wax yu mu dëgg yëpp mun a tekk muñ sunu borom ne ko équipe bi siy jël coupe yaa ko fay yóbbu si am ay ndam yaa fay yóbbu muñ ak dal moo ko may. nañu jël exemple si sunu njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall am na si lu mu nekkoon jóge fa wàcc si askan bi muñam ak dalam dégg lu ne moo ko may tey di mu nekk njiitu réew mi di teral Sénégal ci ay investissement di jàppale askan bi kon mbokk yi nañu gàlloo muñ ak. dal surtout ñun ndaw ñi